alaikum maa ngi leen nuyu ku si nekk turam ak santam man ndax am la ma jaaxal quoi ki nga xamante ne Ousmane Sonko barricade bi nga xamante dañ ko def ka dindi wala boog ma yaakaar ne da ngeen ko ba daan ka ñaari ati wala yaakaaru ngeen dem jël ko ko ah loolu gënul prier ah loolu gënul ngeen ñëw jël ko ngeen yo ngeen ngeen yóbbu ko ngeen yaakaar loolu gënul ah ah am na ma yaakaar loolu loolu moo gën de fi ngeen ko teg nii këram noonu kenn du dugg kenn du génn ñëw leen ñëw ngeen jël ko ngeen yóbbu ngeen ko ngeen lii ko nee na ñëw ngeen jël ko ngeen ngeen yóbbu ko ah ñëw leen ngeen jël ko ngeen yóbbu ko ah ah voilà loolu ah te def loolu.